asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir xalif général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wéex daayira muxaddimatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jumaay tubaa ji ginnaaw bi leen sëriñ bi sante gërëm leen ci seenub taxawaay ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy amal ci jumaa ji saa su ne rawatina ci jamono jii daayira muxaddimatul xidma bi nga xam ne moo sëriñ bi neen mi ngi leen sant leen gërëm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 te xam na ne jubaay Sëriñ Tuubaa kenn du fi ñëw loolu di la waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom liggéey bi nag du lu ndaw moo tax daayira muxaddamatul xidma fas yéene ko yaatal ci mbokki julli yeeg mbokki taalibe yi ngir ñu ñëw jàpp ci ànd ak ñoom liggéeyub Serigne tubaab bi képp ku bëgg a barkeelu ngir jàppale leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moo leen di xaar ci màggal gi mën nga ko tàbbal ci seen compte Coris Bank wala SGBS wala seen conte Orange Money di 77 696 86 17 ngir yeneen leeral mën ngeen woote ci 77 209 77 32 daayira muxaddamatul xidma ñooy ñaanalaat Serigne Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér di leen ñaanal màggaloog jàmm.